waaw bëggoon a entretenir rek comme ni ñu koy defee saa su ne ak gaañ yi temps bu ndaw rek benn dix minutes ci ñetti xew-xew xew-xew bi ci jëkk mooy appelu euh, Seydina Isa li ci topp ñu wax ci jàmbaar yi li ci toppit ñu wax ci benn vidéo boo xam ne ab Ablaye Wade daf ko defoon te ñu jële ci ay jàngat <laughs> grand café la café Touba grand café Touba la rek de bu ma xëyee bala pour ma mën a wax wax ju su correct il ma naan tuuti café Touba grand café Touba la de <laughs> mais ñu ngi lay bëggee bu baax grand dem ba Babs Babs naka Canada Mamadou Thiam waaw bëggee naa leen de waaw sans plus rek pour pour euh, euh, waxtaan nag yeen tuuti rek comme ni ñu koy defee dañuy bëgg ndokkeel suñu mbokku laayeen yi ci appel bi ak seen ziar bi nga xam ne am na te nekk confrères yi boo xam ne confrères yi bu ma respecté la ndaxte am nañ histoire am nañu euh, philosophie discipline nañu respecté nañu seen ay nawle këru diine euh, jox nañ leen cër donc vraiment dañuy ziyaare xalifa bi di wax ak ñàkk ki ñaanam ndax xalifa bii tey di xalifa laayeen yi déglu naa benn vidéo am buy wax naan màggali na presque presque lu jege cinquante fois imagine leen Mm, kooku kon état d'esprit bi mu yore esprit d'ouverture bi mu yore l'actuel xalif des Layènes seetaan naa vidéo am boo xam ne mu ne màggali na cinquante fois donc ñooñu ci beneen dimension la ñu nekk te dialogue interconfrérique c'est extrêmement important parce que coow li bari na fan yi tarixa yi di di wax na lii murit bi di wax na li tijaan bi di wax na lii layen bi Serif dara jóge na fële bombardé ñële ah, sëñ Bass Abdou Khadir remettre na à sa place Saliou Samb ah, sëriñu tijaan ba wax na nangam nee na Saliou Samb doo tus coow tarixa yooyu laa bëggoon ñu jël model comme laayeen yi laayeen yi sii ko ay modèle lañ ci man gisuma leen ñu dugg ci dara gisuma leen ñu nekk fi di waxante ci dara lu ñaaw gisuma leen ñu nekk di xas kenn ñoom ñu ngi ci seen philosophie topp nañ seen sëriñ gëm nañ seen sëriñ topp nañ ko point final respecté nañ nag ñeneen ñi xam nga ku ci nekk da ngay jàpp ci li nga yor ba noppi jox ñeneen ñi cër loolu mooy tax Sénégal mën a dem ku ci yaakaar ne sab tarixa wala sab sëriñ moo fi man ba nga génn di ko wax keneen dana génn nela sab sëriñ manu fi wala sab tarixa manu fi nga mer te doo ci man dara kon il faut ñu ku ci nekk yem fi nga war a yem yam fi nga war a yem mooy ñu yemale ñëpp dérive yi bari na ku ci nekk def nga ay dérive ci wàllu tarixa yi man dégg naa tijaan yoo xam ne li ñuy wax ay murit bu ñu leen remettre woon à l'ordre kenn waxulu kenn waxu kenn waxatu ko dégg naa murid yoo xam ne la wax ab tiijaan bu ñu leen remettre à l'ordre kenn waxatu ko dégg naa Ibrahima Diallo moom ma di wax ab sérif la mais di wax bay saaga murid yi te dégguma sax kenn remettre ko à l'ordre te kooku moom lañu war a njëkk a remettre à l'ordre moo tax ci dialogue interconfrérique nañ ci jël modelu laayeen yi ñoom da jàpp nañ seenu njàmbur seen xalifa bii de jox na cër kilifa diina yépp man loolu bér na ma ñu baax a baax lañu ñu am yar lañ ñu am respect lañu duñu nit ñuy gaaruwaale seen xalifa bii ak seen ñii duñu nit ñoo xam ne dañuy wax di dendale ñee naan kee naan man lay wax ak kii naan man mel ni woykat yi il yooyu ñu arrêté ko kilifa kilifa rek ngay mën a doon nit ñi kilifteef gi ñuy xool ci yow buñ ko gisatul vraiment duñ la joxati cër kon nag maa ngi ñaan confrères yi dañ leen delloo si suñuy xel man ab murid laa jox naa cër tijaan yi respecté naa leen lu leen lu ñu def rek loola la jox naa cër ñaseen yi jox naa cër laayeen yi jox naa cër xaadir yi jox naa cër ñëpp parce que ñun ñi tey nekk fii may live nit ñi di ma seetaan am nay murit am nay tijaan am nay xaadir am nay laayeen am nay canaba canaba am nay ñas ñaseen am nay catholique kon man sama comportement wër wërta nekk man may woote par parloo ci murit gi man loolu warul nekk sama comportement nit ku nekk nag loolu nga war a bàyyi xel ngay Assane Sylla buy live ngay sëriñ bi ngay footballeur bi ngay mbër mi ngay théâtre kat bi ngay woykat bi kenn ku ci nekk na nga bàyyi xel ne yow nit ñi lay seetaan di la bàyyi xel jàpp ne nitu dëgg nga wala jàpp ne li ngay woy neex na jàpp ne li ngay def neex na nit ñooñu am na ci ay tiijaan am na ci ay laayin am na ci xaadar am na ci ñaseen am na ci njaasaan am na ci ñëpp te kenn ku ci nekk sab tarixa da nga koo gëm fonk ko wekk ko kon nañ respectante ci sunu biir na ku ne respecté sa tarixa moroom ku ne jàppal ca la nga jàpp ne moom moom moo lay yóbbu ca yàlla te respecté keneen bañ a keneen ku ne na nga jàpp ca la nga jàpp te bañ a xeeb keneen maa ngi gis fan yëpp ñaa waaye sañ Bass Abdou Khadre recadré na Saliou Samb sëñ Bass Abdou Khadre ñëpp la recadré yemut Saliou Samb rek dafa wax ne nañu fonkante nañu respectante ci suñu biir nañu respecté tarixa yi ndax fii Saliou Samb loolu mu wax bañ di ne bañ koy attaqué am na ñeneen ñu wax toj toj yu ëpp loolu Ibrahima Aïdara mii laa leen wax ne ay dara la mais toj toj yi mu wax moo gën a garaaw li Saliou Samb wax ndax recadré nañ ko nañ ko recadré moom tamit donc man jàpp naa ne addiskat yi tafsirkat yi gars yi waxtaan ci seen tarixa yi léeg dañuy déborder da ngay dégg tijaan léeg-léeg mu wax loo xamante ni bii kenn xamul lu mu doon léeg nga dégg murit def la même chose léeg-léeg nga dégg keneen def laa même chose ku ci nekk boo waxee ci sëriñam ba bàyyi da nga naan yeneen sëriñ si des tekkiwunu dara façon waxin yooyu ak façon defin yooyu moo ñaaw moo jara arrêté bu ñuy remettre nag en cause nañ remettre en cause tout le monde moo tax ñiy bind ci net bi naan waaye ñaw sëñ sa Saliou Samb yemale nañ ko sëñ Bass Abdou Khadre ñépp la yemale te noonu sëñ Bass Abdou Khadre def noonu la Pape Malick Sy war a def war a yemale ñi ne ci tarixa tijaan yi nga xam ne dañuy déborder noonu la sëriñu laayeen bi war a def yamale ñi ne ci sëriñu pas sax sëriñu laayeen bi sëriñu ñaseen bi yamale ñiy déborder ku ci nekk na nga yamale sa ñoñ bu kenn ku ne yamalee sa ñoñ kon kenn du déborder kenn du tooñ kenn nii sëñ Bass Abdou Khadre def yamale Saliou Samb na ko tiijaan yi def na ko ñaseen yi def na ko ñeneen ñi def bu ko ñëpp defee kenn ku ci nekk da nga yamale sax njaboot ñëpp respecté ñëpp Sénégal affaire tarixa nit ñi am jàmm mais nag il faut pas que ñu ne na ah, nañ ko yemalee bàyyi benn waay fële muy déborder sëñ Chérif Aïdara li tax ma di ko wax c'est pour rien damaa déglu audioom déglu ay waxam ku nit la koo xam ne li muy wax ku yaru du ko wax Chérif Aïdara moom ñu li muy wax ku yaru du ko wax te ne kilifa nga donc kooku tamit nan ko yemale mu yem palaasam jox nit ñi seen cër respecté nit ñi laayeen yi nag macha allah maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dafa leen taw feex ak yokkute lu lu lu lu am solo la modèle lañ ci discipline modèle lañ ci yar modèle lañ ci cohérence modèle lañ ci respecté kenn ku ci nekk la la yàlla cëral ñu nangul la ko ñoom modèle lañ ci loolu jox nañ ba jox cër Baay Faal yi jox nañ ba jox cër ñeneen ñi te dangay gis léeg-léeg fii am koo xam ne day critiquer Baay Faal lu ci sa yoon ñoom julliwunu julliwaanunu ah ña nga ca seen yoonu bopp bu bun dee yàlla la ñuy waxal yow waxuñoo yow kon yow sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci maandu ci maandu ci maandu ci moo tax nit ñi dañoo war a maandu kenn ku ne xam nañ sa gëdd kenn ku ne xam nañ sa dayoo ñu ngi ci réew mi ku ne xam na kan mooy kan mais c'est pas la ngay génn di ko di ko yuuxu ci mbedd mi parce que comme dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne bi kenn ku ne dangaa nekk ci saw yoon soo bàkkoo wax lii keneen bàkk wax leneen ah ay problème dong lay indi ak ay werante moo tax jaru ko Serigne Touba de santaane wu santaane ko de bañ ko woowee ne ko kaa ñu takkal la médaille nga yilif bépp réewu Afrique dafa bañ bépp kilifa diine ci Afrique sowu jant dafa lànk bind na ay xasida xam la ne képp ku jàpp ci wird woo mënti jàpp muy wird Ahmad Tidiane yi wala wird Abdul Xaadir Jeylaani yi ak euh, keneen ak euh, keneen ki wird woo ci jàppit baax na donc kooku amul xàjj amul seen ci tarixa yi bu fi kenn sépareel Serigne Touba ab tarixa bu fi kenn sépareel El Hadj Malick ab tarixa bu fi kenn sépareel kenn lenn ci lenn waaw nit ñi nañu yaru nañu bàyyante xel nanu joxante cër nañu respectante kenn ku ci nekk la nga ne ne ca te respecté sa morom suñ ko defut Sénégal problème mu tarixa yii du fi mës jóge kenn ku ci nekk boo xëyee wax la la neex dem sa yoon bu ñu yemale nag man damaa bëgg nañ yamale ñëpp ndax nit ñi yemalee Saliou Samb yemalee ko dans le cadre général ñu étiqueté ko Saliou Samb noonu laa bëgg man ñu xam ne yemale sëñ Bass Abdou Khadre bi dépassé na Saliou Samb dem na ba laal Ibrahima Diallo moomu nga xam ne waxi ju xamadee xamadi lay wax kon ñëpp lañ ci yemale nañ jël ci modelu laayeen ni topp leen roy leen ndax seen jikko rafet na ñàkk nañu ki ñaan kenn ku ci nekk lala la cëral sa niveau ca yàlla jox nañ la ko respecté nañ ñëpp kon nag maa ngi ñaan sunu borom ci barke Seydina Issa lii nga xam ne moom la ñuy def ci seen appel bi yàlla cëral leen ci defal leen ci tawféex yokkute wasaare xéewal yi ci biir